marka mu bëgg a luqarti kooni bu dëj mooy ubbi li nga xam ni mooy yëglekaay yi nga xam ne marka lurdu taas bi nga xam ne tegal na ko gone madridien yi pour ñu génn ci match boobee nga xam ne bokk na ci équipe yi nga xam ne fii may wax ak yow ñooy équipe yi gën a taxaw ci àdduna wala ngal kàpp Saloum ay fan bokk na ci ñi gën a taxaw ci jaaykatu téléphone yi ne ci biir réewum Sénégal mu ngi ci 77 290 11 56 bu ngeen ko wooyee def seen i commande mu dabbar ñi leen yëglekaay baa ngoog marka yëglekaay li mu indi ci xët mu njëkk daanaka juróomi footballkat yoo xam ne li leer ba leer mooy ay màgget lan yoo xam ne fi mu toll nii màgget yooyee tey jii wala boog suba jàmm ci match bi nu war a dajee Guney City bu fekkentee ne ñoom ñooñee munu ca ndam ak buñ ca amee ndam man naa am mu doon seen mujjantalug li nga xam ni mooy Ligue des champions ci li nga xam ni mooy dendug Europe ndax ñoom ñooñee fi mu toll nii daanaka ba ñuy yàng lan boo ko laalee mu dem boo ko laalul mu dem fekk na booba ci record yëglekaay AS Milan bi nga xam ni moo war a daje équipe bi nga xam ne mooy Inter de Milan exploit la ko gars yi nga xam ne ñooy Milanais yi daal di teg ci taabal ji pour def loolee waaye seen entraîneur ma ngay wax ci biir yëglekaay bi di xam la ni dana dund tey match boo xam ne bu jë bu wuute la ak match bi nga xam ni dundoon nañ ko. loolee ah, daanaka jërul di wax lim xam na ci yëglekaay bi loolee mooy nekk wala mu dem ah, seeti la neen waaye beneen ki nga xam ni mooy entraîneur Inter de Milan bi di nekk ki nga xam ni ah, moo nekk si Simone Inzaghi moom it li mu xam la ci yëglekaay bi jàpp na ni loxo yi moom nañu ko téye tëj ko bu dëgër dëgër tëj yi tëj digg militaire bi loolee ci yëglekaay bii di record suñu ko defee teew féex mën naa judd ci li nga xam ni mooy sunu équipe te loolee daanaka li ci kanam rawuti ba li ci kanam ngoon la kon bu àndeek dogal borom li ci kanam moom Habib Diallo nii mu ko commencé bu ko continuer dana toroxal équipe France yi nga xam ne moo ko dese ca championnat boobee nga xam ne gone gi ma ngay continuer di dabbar ñi yëglekaay bi nag beral ko aw xët woo xam ne moom rek la ko defal ci kaw coppati ko ndànk ndax di xam la ni gone gi taxawaayam fi mu toll nii am na solo bu baax a baax liensoo yi nga xam ne war na noon laale ak Corée du Sud loolee mat sub entraînement la boo xam ne bu nar a mucc ayib la ngeen bàyyi ko xel yeneen xibaar ci kanam tuuti Aladji Malick TV